mbég ci ànd ak yéen seen émission Kouthia Show de alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla suñu borom bi nga xam ne moom moo ñuy sàkk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne nag ñun ñëpp ginnaaw yàlla yonent bi moo tax ñu sàkk ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ziara tamit njabootu yonent yàlla Yeesu Christa borom xel mu sell mi di nuyu tamit kilifa diine yi nga xam ne ñu nekk ci bopp tarixa yi ñu fi nekk yàlla na yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna yàlla na yàlla xara ci àjjana gën a kawe bàyyiwuñu kenn nag waaye di ñaanal réew mi ñëpp ak suñu mbaay yu baax yi suñu yaay yu baax yi ñu feebar te tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla na yàlla féexal ba ñu génn suñu yaay yi nga xam ne bu heure bi jotee dañu uuf télé yi ak seen ay sët dañu seetaan yal na yàlla may jàmm guddal seen fan ñi nga xam ne nag dañoo toog euh, caabi feeti leen ginnaaw te ñuy bàyyi xel yal na yàlla génn ba ñu afu génn nag euh, ci doxi seen soxla te moom seen moomeel bopp ndax dara gën te neex moom sa bopp di dox sa soxla euh, di ñeelwaat di gis say njaboot ak say xarit di ànd ak ñoom yal nañu ko yàlla defal ñaanal ñëpp jàmm ñaanal réew mi jàmm ñaanal ki nga xam ne mooy président Youssou Ndour PCA groupe Futur ak wér fi nekk ñëpp ci kër di liggéey Alaaji réalisation bi euh, di euh, euh, réalisation technique ak centrale moom moo fa nekk ki nga xam ne mooy Hage Mansour di ingénieur en son bu mag bi moom moo yor ca son ba fas yéene nag lépp lu ñu wax bu dugg seen nopp wàcc si seen télévision ngeen ñuy seetaan mbokk yi ñuy gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan waaye tey nag bés bu am solo la di wax joyeux anniversaire à madame Guèye Sali Sarr doomu Diène Farba kooku nag suñu xarit la madame Guèye Sali Sarr doomu Diène Farba Sarr ak ak de la part de son mari Pape Abdoulaye Guèye mu baax bi nga xam ne nag euh, wax dëgg yàlla euh, nit ku baax ku yaru ku teey ku lislaame ku julite ku fonk njaboot ku bëgg njaboot moom tamit euh, ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram moom madame Guèye Sali Sarr yal na yàlla gudd fanam jigéen ju baax ngi nii wax dëgg yàlla boo ñëwee këram rek këram rek boo fa ñëwee nam lay teeroo rek ak nam lay joxee nga lekk wax dëgg yàlla da ngay yokk day yokk sa appétit nam lay joxee ñambe rek ngay ne ne kii yéene na lekk bi ku baax ku sell te set ah bàyyam la jël di jël Farba Sarr ministre ba ah, nga xam ne wax dëgg yàlla ah, moom lañ dénk fii nga xam ne moom mooy ah, techno pôle bi nga xam ne moom mooy jam ñaajo yal ko yàlla defal jàmm en tout cas daal Pape suñu xarit Pape Abdoulaye Gueye sa jabar jii di Sale Sarr yàlla yàlla gudd fanam man maa ko wax ku baax ku tabe yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu defal ko fan bu gudd ak wér gu yaram de la part de ton mari et de ton chéri Abdoulaye euh, euh, Pape Abdoulaye Gueye et euh, Koutia ñu ngi la koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram joyeux anniversaire maire mère Banna Diop doomu Kumba Ndiaye ak Moussa Diop Euh, depuis euh, Silma longue vie et santé photom ngi noonu mère Banna Diop ñoom nag mère Banna Diop lañ koy ndax yaayam la ko tuddee moom Moussa Diop xale baa ngi noonu yàlla ko yàlla defal jàmm joyeux anniversaire à Serigne Khadim Fall borom tawfeex ngi noonu de la part de ta petite sœur Mbène Diakhaté qui te souhaite longue vie santé et bonheur à Serigne Khadim Fall borom tawfeex moom yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne euh, Khadim Fall borom tawfeex mbokk yi est-ce que xam nga ne coowu velo bi ak coowu casserole bi ba tey mu ngi am parce que vélo bi nga xam ne Sonko dawal na ko ci mbeddu Casamance yi actuellement Casamance clando yëpp taxaw nañu xale yi daw nañ jënd velo mu tombé fin d'année ku ñu laaj nga ne papa vélo laa bëgg papa vélo laa bëgg mag ñi ñi nga xam ne amoon nañ vélo gën a jël seen velo raxas ko léegi nag demi tour sur la route la waa Casamance xewal ak xale yi daw ba si àgg rek jékki-jékki tourné challenge boobu nag est-ce que yëngal na waa APR wala yëngal waa APR waaye boo ci internet bi ah, ah, vélo Sonko ba daal mu ngi fay lëmbee. waa APR ndax loolu yëngal na ne war a yëngu ne dem seeti ki nga xam ne mooy Kouramaki ak ki nga xam ne nag moom mooy euh, jigéenu euh, waa PASTEF ñu indi ñu débat boobu ci jiitalu Ndeye Faye mu wax ñu nag ndax welo bi ak casserole yi coow li lan moo ko indi ak fan nañu ñuy jëm ضريحة لروض القطب asalaamaaleykum mbokk yi xarit yu seetaan ñu ngi am mbégte bu mag ñëwaat rek ni leen koy defee saa su ne di leen indil seen débat bi nga ne actualité la di nuyu képp xam te mi ñuy seetaan rawatina kilifa diine kilifa aada di leen ñaanal saa su rek yal yàlla sunu borom oyofal yan bi di jiital si nuyoo bi ahlu bayti rasulullah Mamadou Makhtar la jiite ko ca Cambérène farlu ci diine ji ansaar la université bu Lay Sa du ma leen fàtte nuyu naa ñëpp di leen ñaanal rek yal na yàlla ñëpp jàmm tey am ñaari invité comme ni ñu koy defee saa su ne di Coura Macky honorable ak kii di Diarra Ndiaye daal fi représenté nag opposition bi rawatina waa Pastef euh, maa ngi lay bu baax jaar yow laay jëkk bàyyi nga nuyoo ma soog a ñëw nag si honorable Coura Macky nday maa ngi lay nuyu di rafetlu invitation bi di la wax ne la sa sañ sa baax na di nuyu sama naataango bi nga xamante ne moom laa bokkal plateau muy Coura Macky di nuyu kilifa diine kilifa aada di nuyu àddina wërngal këpp di nuyu ki nga xamante nag tubaarikàlla moom a génn fii ci cheveux bi ñu naan ko Aliou Cheveux nekk fee ca marché HLM maa kontaan naa trop di wax xale nag promotion bi jeexagul de continuer ku ko ku bëgg ci cheveux yu baax yi da ngay woote ci 77 351 97 50 42 woote ci numéro boobu rek nga dem ñu sàjjal la jaay la yu baax a baax. jërëjëf Diarra damay bàyyi rek euh, ginnaaw bi nga nuyoo ba pare euh, di la nuyu tey El Hadj Malick ak El Hadj Mansour di leen nuyu bu baax tey da leen fàtte waaye di waa yàlla seet jàmm yàgg aha Youssou bi yaay Kumba ñëpp ñu ngi leen di ziar toute l'équipe kon damay bàyyi rek honorable mu daal di nuyoo ñu dugg ci débat bi nday fay na moon naa la tey dama tardé nag moo tax ni ma dugg see sedd waaye warul sedd kuramaki ñëw na kuramaki ayam baak ay kuramaki ñëw na kuramaki ayam baak nday maa ngi lay fay di nuyu sama sëriñ ba sëriñ Rafaayil Mbàkke mu sëriñ Fàllu Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér di nuyu sama waa parti di nuyu sama président Macky Sall mi xew ci jamono defar dëkk bi dafa réew bi nday doxalal ba ci kanam nga ñëwaat damay doxal kon euh, sama laaj bu njëkk dama koy jëmale rek si jaara bi nga xamante ne rek madame Diarra Ndiaye euh, bi fii représenté waa PASTEF 31 euh, décembre ñëpp di waajal rek discours à la nation bi nga xamante ne président Macky Sall moom lay waajal waaye mu mel rek président Ousmane Sonko nee na concert casserole bi na ko ñëpp waajal ana ban jàngat ban gis-gis nga ci am. ndey loolu surprise la comme ñun yàlla dafa def bës bi dañ koo téye ci suñu loxo bi lu ñu def yàlla suñu borom def ci barke. loolu xoolal dañ koy teg nee ba nga xamante ne jour ji ñëw na ñu def li ñuy def xale yi reprendre ko ñun la fi yàlla teg ñun la yàlla suñu borom def li nga xamante ne tey jii lu ñu def rek mu wër àddina lu ñu laal moo gën lu ñu laalu lu ñu laal jamono yi moo gën lu ñu laalu moo tax concert casserole bii ngay wax nii dañuy bàyyi lépp def ko surprise xam ne bu ñu génnee tey jii rek gars yi dañuy reprendre te xam nga ñun moom fu ñu génn rek foofoo gën a nooy nañ bàyyi bu boobaa day surprise lañ koy def waaw surprise lay doon. kon surprise la waaw ku dem ak honorable ban gis-gis. ndey ñi dañoo kaf tëgg ay casserole. ndey est nga casserole day crise ay xale. casserole. kenn du ko tëgg nawet. dafay crise ay xale. nawet nawet bi jeexagul. bim koy tëgg nday boobu ñu ngi ci nawet. ndey. nday ñii nañ leen wax dëgg nday ñii dañoo kaf te réew mi tollatuñ ci kaf tollatuñ ci fo ñii nday ñii dañoo fo barki yonent bi ay casserole nga di ko tëgg nawet xale yi di crise nday loolu yoon la nday foofu dama ñii dama yaakaar dañuy reeve nawet jeex la di nawet jeex la di ñu ci noor di ñi xam nga lu leen jàpp dañoo tiit dañoo stressé xam nga Ousmane Sonko nag tubaarikàlla daf fay dawal vélo àddina yëpp yëngu. waa kay balaa ñoo ñëw si dawal vélo bi euh, honorable euh, est-ce que euh, casserole bi ngeen ba na gis nañ ba passé bi ñu ko fi defee mu am bës bu rëy tamit xale yëpp génn mais heure bi ñu ko war a defee mu nekk 31 décembre président de la république wala war a def discours Ousmane Sonko bu génne est-ce que yéen seen discours nit ñi dinañ ko tal ak dinañ ko seetaan. day fay yàlla dëgg la bëgg casserole bi ñu koy tëgg ñu nawet. mais dañ ko war a tëgg ak 31 décembre 31 mais nañu tëgg ñoom li ñu bëgg duñ ko am oyé oyé terewul bañ ko tëggee casserole yi nga ne foofu jarul sax nga yëgali question bi casserole yi dañ koo tëgg terewul dafa taw ba dëkk bi inondé kon xam nga ne ñun ay porte bonheur lañ Ousmane ko mu sell mi ñun les sonket fu mu ñu woo dañ ko fay wuyu les sonket de Sonko tubaarikàlla ñun dañoo xew jël bës bi téye ko mu neex leen mu naqari leen dañ koo téye ak fi réew mi toll ñun dañoo xew ñi xalal dara jàppale lu mu tiit dañoo tiit donc looloo leen jàpp. d'accord euh, ginnaaw ñu tiit ñu gisee que dawal na fi velo vélo bi challenge ba nga xamante ne bu rëy la ndax gis nañ ne rek euh, nowel bi ak fin d'année bi ñëpp ñu ngi ut vélo Casamance moom manqué dafa déjà ndax président usman Sonko bi mu génnee euh, semaine passée def ko rek ñëpp ngi laaj vélo ñuy bëgg rek ñu seetaan tuuti benn extrait bi nga xamante ne moom la président Ousmane Sonko di dawal après nag ñu ñëwaat léegi ci débat bi ànd waa régie ñu seetaan élément bi te ñëwaat léegi. di jaajëfal bu baax a baax waa régie rek si élément boobu ñu seetaan léegi gis dañ na euh, <laughs> challenge bi ñëpp ñëpp a koy def. dafa rafet. dafa boo bëggee dégg-dëgg jamono yu vélo dafa nekk en rupture. koo gis xoolal ñu doon dawal seen oto yi gaari nañ ko léegi ñëpp vélo la ñuy jënd di dawal vélo léegi boo bëggee dégg-dégg xam nga embouteillage oto dafa amoon léegi jamono yi embouteillage euh, euh, vélo moo am ndax xam nga nag Ousmane ko mu sell mi lu mu laal a gën lu mu laalul wax naa la ko léegi lu mu laal a gën lu mu laalul vélo bi ba mu ko dawalee ñoom oyombenten ki guy ko saxul laala gis naa leen sax ñu naan ay brouette la ñuy dawal ku mën na def ku mën na def honorable mu mel ni euh, yàlla yàlla daf ko def ñëpp bëgg ko rawatina xale yi gis nga léegi waaye euh, demi tour bi nga xam ne moom la def si digg tali bi xale yëpp moom ñu ngi koy def mu nekk challenge bu doy waar yéen ana nag lan ngeen di waajal. nday di ngeen dawal yéen. nday li ma la wax sànq rek ñii dañoo kaaf. waajur yi tee leen seen njaboot gi. dëkk bi wóorul ngeen di bàyyi xale ñuy dawal ay vélo te dawal vélo. ci ci ci demi-tour bi ci digg tali bi est-ce que wóor na est-ce que wóor na tali bi di dawal vélo tey leen seeni njaboot yi gis ngeen ñii ñii nday ñii dañoo kaf te foo baaxul nañu bàyyi askan wi ñuy nax nañu bàyyi askan wi ñuy lëre ndey nañu waxante dëgg bu fi benn xale dawal vélo président Macky Sall moom dafa dépassé fu muy dawalee vélo. léegi yéen léegi yéen ba ba waa démb dawal na bur burwet bi léegi yéen ban challenge ngeen di génne pour yéen tamit xale yi toppal pour wat li yéen tamit jox nañ leen bopp. ñii xoolal ñëw weesu ñëw weesul muy dawal burwet yéen ci ñun ngeen di roy lu ñu def ci ñun ngeen di imité lu ñu def ci ñun ngeen di imité gis nga ñun. lu ñu laal a gën lu ñu laalul muy wax ngeen di dawal ay brouette ku mën na def dawal leen vélo brouette du brouette ak fi mi toll ñu naan dañuy dawal ay brouette yow bàyyi la ñuy welo nday lii la ñuy welo bàyyi leen askan wi ngeen di nax boo président Macky sàll ñëwee ngeen xam ne lépp dëgg la barki yonent bi yow Sonko bàyyi xale yi ngay nax bàyyi nit ñi ngay foyee seen xel yi bàyyi di foyee ci xelu nit yi nañ waxante dëgg nday yàlla dëgg la bëgg en tout cas message bi ñuy lancé mooy 2023 bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu si jàmm ak salaam ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim génnaat si alhamdulilah rabbi alamin coow li bari na liggéey leen Sénégal sonn nañ damm nañ taay nañ booloo leen bu dee Sénégal moo leen tax jot euh, opposition comme pouvoir ngeen defar réew mi te bàyyi coow li loolu laa amoon si li may wax lay xaar ba kenn dawal fi vélo. oyee. oyee. yow du ma wax ak yow yow wéroo. yow taxawal yow wéroo li nga bëgg ci man waaye yow li nga bëgg duma la ko may barki yonent bi kumba kumba kii li mbëgg duma ko ko may barki yonent bi nday kii dafa gàpp dafa foye nday kii dafa foye laay fam barki yonent bi oye xamoo leen li léegi fi mu nii day nan ko def Macky Sall kon ak Sonko. Sonko ngi nii Macky Sall ngi nii. askan wi àttal leen. ñun duñu seen morom. ñun duñu seen maas. ñun duñu seen mappandoo barki yonent bi. maye. saxar domaine bu mënti doon doon soo jaare si kaamu wala yoon yoon soo jaare si kaamu wala yoon yoon

mbokk yi am nañu mbégte ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di gërëm nag ña na xam ne nekk ci réalisation centrale ba euh, Alaaji Malick Ndiaye fekk goog ki nga xam ne nag moom mooy Hadj Mansour ci son bi ñuy gërëm nag euh, kilifa diine yi rawatina nag suñu soppe bi nga xam ne bésam bi wax dëgg yàlla dañ ciy taxaw ci ndigalu àll xalifa Cheikh Mahi ñas mu Cheikh Ibrahima Niass rabiallahu taala anhu ci ndigalu imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ci ndigalu porte parole bii di Cheikh Mahi Cissé euh, ñoo leen di yëgal nag gàmmu Serigne Jim Ndiaye Euh, tawam euh, taawam bi nga xam ne nag mooy euh, xalifam di Serigne Abdoulaye Ndiaye moo leen di yëgal nag gàmmu Serigne Jim Ndiaye Kaymoor bi ñuy amal chaque at ren di nag di tombek le 4 mars ca Kaymoor di bés bu am solo parrain bi nag di di Seydina Mohamed P sal si luy keneen ku dul moom amu si cër te ba faw lay doon nag ndax kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaral képp koo xam ne nag jaral na la ci bës boobu nag ci teew ndax bës bu am solo la ñuy ñaanal ki nga xam ne nag moom mooy xalif bi di eh, eh, di di sëriñ Abdoulaye Ndiaye yàlla ko yàlla bàyyi fi mu yàgg fi te wér wax dëgg yàlla nit ku yàlla baaxal la bàyyam bu boobu nga xam ne nag di waaliw kaamil di sëriñ Jim Ndiaye Kaymoor nekkoon koo xam ne ku soppoon El Hadj Abou Bilal la doom ji moom ma ko wax di xalif bi nee na ma sama bàyyi wax dëgg yàlla daan na la teelu di la ñaanal wax dëgg yàlla eh, di la sànni ay ñaan kon tey bu dëddoo àdduna wax dëgg yàlla ñu koy defal gàmmu yow kenn warutee ëpp cër moo taxit bés bi daal ñu ngi ciy woo mboolem jullit te di leen xamal ne nag bés bi képp ku ci jël sa tànk dem fa tànk yiw ngay am ca dem ba tànk yiw ngay am ca ñëw ba yal yàlla may ñu ñëpp ñu fekk ko te euh, tal ko te yàlla dafa ñu ci ay xewal yu bare bëri bëri gàmmu bii nag du gàmmu national gàmmu international la ndax fa ndigal ba jógee la wax dëgg yàlla yal yàlla may ñu fekk ko di ñaanal ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Abdoulaye Ndiaye euh, Kaymoor di taawu euh, Ah, Serigne Jim Ndiaye yal na yàlla gudd fanam may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram bés bi daal wax dëgg yàlla ah, danañ ca dem teewal fa ah, waa TFM teewal fa tamit taxawaayu président groupe Futur Média di Youssou Ndour ndax bas bu am solo la di delluwaat di gërëm tamit ki nga xam ne nag moom mooy an def anniversaire tey di Serigne Khadim Fall borom taw feex yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu a dédicace à Major Sy Euh, nekk foofu ci infirmerie bu front de terre ak euh, euh, Baye Mohamed Sy chéri Oulay ñoom Abdou Niang gendarme foofu ca front de terre Moussa Sy infirmière diplômé d'état gendarmerie foofu ca gendarmerie front de terre ñu ngi koy ñaanal kenn dalu jàmm dédicace à Serigne Cheikhouna Alxuraan moom tamit di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu moom Serigne Cheikhouna Alxuraan nit ko yàlla baaxal la yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram fotom bàyyi xel ñu ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram yàlla yàlla guddal fanam dédicace à Mame Khadija et Aliou Niang Seydi Niang ak waa Cambérène yëpp ñu ngi leen di ñaanal kenn du la jàmm rawatina nag Mame Khadija euh, ak Aliou Niang ñoom tamit suñu ay soppe nañ wax dëgg yàlla bu heure bi jotee ñu ngi uuf télé bi di seetaan di bëgg yàlla na yàlla defal jàmm Martin Lopi et sa famille depuis Paris ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm ndax nag ca Paris bu heure bi jotee kenn du def dara dul toog di seetaan émission Kouthia Show ñoom Seeku Ndiaye monsieur la commune de Kawour le plus jeune maire euh, qui a fait deux baaxal yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér yaram UGL Union des jeunes leaders organise un don de vêtements aux talibés le 8 janvier 2023 à 17h foofu ca Cambérène monsieur Ndiaye ak élément UGL yi ñëpp ñu ngi si euh, woo ci bës boobu ak euh, ñu ñëw euh, jàpp si ndax bés am solo la un geste de votre part peut m'épargner du froid maanaam seddaay bii nga xam ne wax dëgg yàlla ku ci jëf ci xale yi yàlla mën na leen aar ci li nga xam ne mooy seddaay président Macky Sall moom nee na dootul bàyyi opposition dara ci challenge lu ñu génn ci internet bi moom dana génn ci internet bi bu gars yi waxatee dara moom mu tontu dara du bàyyi dara am nee na ni waa opposition bi amee ay influenceur maanaam ñu nekk seen ginnaaw di càkk-càkke kàcc-kàcce <laughs> kàcc-kàcce nee na boobu nag moom ci boppam léegi dafay kàcc-kàcc kon ñëpp parce que du leen may ci dara challenge bi mooy Ousmane Sonko dawal na vélo àdduna bi ñëpp gis ko ñu bëri di ko prendre Macky sàll indi bureet tontu ko ne ko man liggéey laa am ñu ne déet na waaye dafa mënul dawal vélo moo tax mu dem indi ay bureet ndax bureet da ngay puus mu topp la Macky sàll ca Tambacounda mer na kontaan na nee na moom non stress lay dund dana dawal velo ba ay militant bég ñu seeti Antoine Diome ak benn influenceur si seen jàngal dawal vélo boobu nan lay mujjee ndax Macky dina dawal war dawal ak nan la koy doxale Abul Abbas Antoine waaw mais kay kay gaaw on n'a pas le temps là militant yi alors yéen a ngi toog waaw garde votre kii rek il faut ñu wan leen que ñun xamuñu ay caaxaan bon avant ngay woo influenceur bi da ngay bàyyi ma def benn tour ba maîtriser ko parce que bul ko génn ci internet bi ñu ne xoolal jàngul munul su ma defee benn tour ba maîtriser ko naturellement après nga woo kii filmer mu filmer ko su ko defee xam nga parce que <laughs> xam nga Fatick moom wax dëgg yàlla wuti dafa am ak ay saretu mbaam bon bu doon euh, yeneen dëkk yi la sax ñu mën a wax parce que Fouta moom amul vélo <laughs> d'accord mais léegi bismillah teel ma xaar ma wagu bi di ñëw ah. hmm? léegi yow booy dawal booy dawal da xool sa kanam. waaw non xam naa sa kanam ngay xool doo xool sa ginnaaw. voilà da ngay sa kanam di pédale. waaw loolu mën naa ko jàpp nañu bon gars yi waa APR ils sont là entre nous quoi. ndànk ndànk xool sa kanam sigil oh, xool na d' accord. maa ngi tourné te ful man. waaw voilà moom ni la ko doon defee ah. ni la ko doon defee gis nga ba bàyyi ma ma xool. kay kay kay kay kay non kay bul dem. voilà. xam nga booy dañuy tudd rek gis dolo. waaw waaw bàyyi ma xool. wàllu ma. waaye ma xool waaw léegi wala influenceur bi woo ko waaw woo ko woo ko woo ko woo ko woo mbay mën nga ñëw eh, mais eh monsieur le président monsieur le président du ay foofu du ay caaxaan eh mais mais mais mais Mouhamed Sylla sa président du ay foofu du ay caaxaan vélo du ay foofu du ay caaxaan dawal vélo mais dawal vélo. yesaay yesaay mais dawal vélo. mais benn président la am benn président la ñu am. yaay jàpp non non lii bu ko dugal da ngay xaar ba mu ba mu jàpp. non am problème am problème am am problème. mais président bi day fo de mais. non lii du dugg. mais président mais président yaa ngi yàqu mais président li la la. mais mais mais président non non non mais président mais Macky mais président. mais mais. waaw ma ngeen doon. mais président mais monsieur le président mais président mais président mais mais mais. mais mais président. mais mais kay mais monsieur le président mais Serigne Fallou Faye Baye Am Sall mais Baye Am Sall borom Fatick ah mais Baye Am Sall mais Baye Am Sall mais Baye Amadou Sall. waay foofu. booy mu xool booy mu xool booy ma maa ngi kontaan ci yéen. mais Mouhamed Sylla. kenn ku nekk ku nekk am nga li nga mën. l'essentiel dawal naa vélo bi te ñun taluñu sax ay dawal vélo ñun liggéey nañu xam. jàpp suñu ñàmbur parce que li ma def ñu tey sama kër laa ko defee bu doon ci mbedd bi ngeen xam ne lépp dëgg la te kontaan nañu ci Sénégalais yi kontaan ci militants yi état d'esprit bi mooy sol naa casque def naa vélo awma blessure génn naa ci ci li mu bëggoon def ku nekk rek ak li nga tàmm ak li nga mën man bureet laa mën wane naa ci sama sama sama sama Pastef war ci sama jom ak sama fula. kon tey ñu nekk ci internet bi gis nañu li nga xam ne jot nañ ko def et entre nous c'est la première fois ma dawal vélo c'est la première fois kon li ma ci am ni tey dañ ma ko war a gërëmee dañ ma ko war a tàccu dañ ma ko war a sarxale mais ñun mais ñun actuellement ñu ngi dund non stress bu ñu kenn sonal bu ñu kenn yàqal li ñuy waaj ñoom la 31 décembre ñoom ñoo ko tal ñun taluñu loolu ñun liggéey nañu xam ak jàpp ñaambur ak wana sénégalais yi que ñu ci ginnaaw bon pour walla ne kon ñun on n'est pas stressé d'accord ñu ngi fii ci Tambacounda di inaugurer suñu ay aéroport suñu ay projet ay camp militaire ay foyer centre culturel ci loolu la ñuy dox ñun et moom kenn ku nekk li nga mën bu fekkee wane nga ko na ko jëfee moom dawal velo la mën na dëkk ci télé bi di dawal velo mais ñun li ñu mën xam nañ ko ñu ngi koy def mooy ñu ngi fexe ba sénégalais yi di gis ay chantier yoo xam ne ñu ngi ko tabax taluñu solu taluñu lekk ñu naan vous savez un président de la république qui porte un tchaye c'est pour montrer que les sénégalais ñu on n'est pas décomplexés mais direct bi nii ah, ah, nee nañ caay bi quoi. waaw mais consommer local la. Ah. <laughs> consommer local. donc pour ñu wan a Sénégalais yi ñun amuñu complexe. mais ambiance. ni ngeen ko bëggee ni ngeen ko bëggee noonu lañ koy defee may la ñu tuuti ni ngeen ko bëggee noonu lañ koy defee kon léegi dañu leen bàyyi yéen noonu lañ ko bëggee ñu defee ko noonu ba ngeen xam ne ñun ñu ay caaxaankat allez-y. Mm. ngeen waaw liggéey la xam liggéey la xam waaw waaw ngeen na ngeen na waay waay encore dama ne dama ne min ko Haalpulaar jurimaam weltuma yo Allah suran ci askan bi ma juddoo amu ku ñàkk fayda ñun daal velo yóbbu suñu fit ñun anda dali nyerata Macky nyerata ma ne boo leen sonn duñu sonn ñun xamuñu caaxaan nga ngeen bëgg yéen sénégalais waa Pastef waa Yewwi Sénégal il se prend des gens qui peuvent nous déstabiliser on n'est pas d'accord liggéey nañu xam jom nañu am ak kenn mënuñoo pousser ñu dellu arrière est-ce que vous savez que ñun ngeen ko bëggee noonu lañ koy defee parce que Sénégal benn bopp lool kenn mënu ko xar ñaar ñaari fan moo ci des at bi jeex ñun dañuy bëggee dañuy xappi on n'est pas peur de l'opposition bu ñu tegee casserole ñu fecc ko bu ñoom bu ñu tegee casserole ñu fecc ko jël ko en direct na ko gars yi boo leen sonn duñu sonn boo leen tayiwul duñu tayi et eh, et eh, on va donner un exemple à tous les Sénégalais comme moi le président Macky Sall président de tous les Sénégalais qui sont dans l'opposition et qui sont dans le gouvernement man maay seen baay man la ñu bañ ko ñu nangu ko man maay seen baay parce que je suis le père de la nation est-ce que ñu xam na ne man mënuñu maa déstabiliser ay casserole buñ ko tëggee ñu fecc ko askan da ngay foog ñoom soo amee sa askan da ngay foog ñoom dañ ma dañ ma yàq sama digganteeg askan wi li ñu bëgg man duma ko def di ma wooye ay ñàngal sàll naan man nit ku mer laa di ma jaxaseeg sama askan est-ce que tey li gis doy na leen est-ce que gis doy na leen est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes parce que vous dama na mbay ngay fay nee na Youssou loo tëgg ma fecc ko loo way ma tëgg ko lu ñu kasarool ma fecc ko ma ne ma ne Macky dafa génn fecc bu bees Macky dafa génn fecc bu bees président dafa génn fecc bu bees et dama génn fecc bu bees moytu sa noon fecc bu bees tontu sa noon fecc bu bees du ma leen du ma foole fecc bu bees eh fecc looloxal loxloxal loxloxal loxloxal loxloxal loxloxal loxloxal loxloxal loxloxal loxloxal loxloxal est-ce que vous êtes là duñu leen may dara dañuy jaay casserole ñun ñoo leen dàq tëgg casserole dama ne balaa 31 décembre ñu xam ne casserole am na ba pare est-ce que vous êtes là partagez leen partagez leen aimez leen like leen joxe leen ay fleur flowers dina daw dama ne eh dama ne ma taasul leen ma taasul leen ajo ma taasul leen président taasul leen ma taasul leen ma taasul leen ni gawalo ni gawalo eh ni gawalo ku sa noon di sang set ku sa noon di sang set ku ma jëm maa ko xam ku ma ko waxul doo ko xam ku sanoon sangu doo set ku sanoon sangu doo set fi ma jëm maa ko xam li ma bëgg maa ko xam ku sanoon sangu doo set ku sanoon sangu doo set arwatam e arwatam ñaay cokar garan Dakar aslem Fass Pikine Guédiawaye laasana robina lawbe Casamance Tambacounda sa guuta ndang sa guuta ndang ee sa guuta ndang ma ne sa guuta ndang Khalifa Sall sa guuta ndang Ousmane Sonko sa guuta ndang Sonko sa guuta ndang Déthié Fall sa opposition seen nguur ta ndang eh, seen nguur ta ndang opposition eh, ma tasul leen ma tasul leen ma fi ma jëm fi ñeme ko tax ma koy wax gaynde bu duggee ci àll bu xëfee du fadd dafay xar sa ma tasul leen sama mbokk Haalpulaar yi lay ba ñu ne dama bàyyi xeet e mi juri ma mi welti suren dafa ñaafa de taame de keewo jingo de keewo yitiri biɓe aali aissata gelleje mbaɗi humo kaaɗi ndiyam mu gattudama mu gattudama hey matasul leen e matasul eh, leen mane ne maa tëjëb kooñ jaar fa BRT maa xotti raay dugal fa BRT maa indi teer mu tiim asamaan si maa dugub géej bale pacal jalan pont ee sa guuta sonko sa guuta sonko sa guuta ngang du ñu déranger casserole du ñu déranger rantang rantang rantang tang tang tang tang rantang rantang rantang rantang tang tang tang tang eh tang tang tang tang du ñu tax du ñu dellu ginnaaw man Macky Sall Macky Amadou bila kalimatu siri dafa ñaafa de taami de keewo de keewo jingo de keewo yitiri biibi ali aysata gella jemba de huma ko seeri marem ni seeri marem marem a xotti pale bi dafi cuuraay toggu ceebu jën saafal ma ay géej dafal borosek yaa ko jaral ana APR Est-ce que vous êtes là Eh, eh, sa guut a ngang Eh, eh, sa guut a ngang opposition seen guut a ngang rang-tang rang-tang rang-tang tang tang tang tang casserole rang-tang rang-tang rang-tang tang dama na sama ingénieur lay waxal eh eh bu dara sedd Macky mooy yëngal waaw bu dara sedd waaw Macky mooy yëngal bu dara sedd Macky mooy yëngal kontel ne wan kontel eh wan kontel nel eh benn kontel eh ñaar su ma neexee damay dolli su damay dolli su damay dolli su damay dolli eh ma dolli ma dolli ma dolli Dakar dolli Tamba dolli Touba dolli Tivaouane dolli Diourbel dolli Ndar dolli Casamance dolli Kaffrine dolli Kaolack dolli maa xool ci suuf si dafal ma wujjal na jëm ka na jëlaa ah noonu jëlal ni ni rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang sa guuta ngang eh sa guuta ngullu eh sa dama ne dañuy déranger opposition bi mënuñu de man Macky lu ma daaneel yombul man Macky lu ma daaneel yombul eh man Macky lu ma daaneel yombul eh man Macky lu ma daaneel yombul eh man Macky neel benn eh neel eh, neel benn eh Eh, neel ñaar eh, eh su ma neexee dolli dolli eh su ma neexee dolli dolli eh ma dolli dolli eh ma dolli dolli eh ma dolli manda eh, eh ma dolli manda eh ma dolli manda eh ma dolli manda eh ma dolli manda ngeen doyal wala déet eh yéen a waxoon góor gi doyal nañu waaye booy bii waaye booy bii doyal ngeen am déet doyal ngeen am déet doyal ngeen eh, eh, sa guuta ngang sa guuta ngang Xalifa Sall eh guuta ngang Sonko guuta eh, ngang ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf ci ñoo ko maye ñun waa APR parce que ñoom la 31 dañu nar a déconné Alaaji Malick Ndiaye lay laa li dafa réer Alaaji Malick Ndiaye lay laa la gay dafay réer Alaaji Mansour Gaye teel ma son bi bin bin nanka nanka nanka nanka nanka bu dara sedd dama ne Youssou dafa woote le premier janvier ñun waa APR ñu woote le 31 décembre concert nañu wax waaye ñun dañuy def concert haute voix opéra nañu def ak chorale ca kaw bu dara sedd xoolal ñoom dañuy tëgg casserole waaye dara du wàcc sëgguuta ngay dégguma leen dëggu ma lan de Alaaji Malick Ndiaye sama réalisateur dëggu ma la de Alaaji Mansour eh eh ma dolli eh ma dolli eh ma dolli neel benn eh, eh neel benn eh neel ñaar eh eh ma dolli eh ma dolli Antoine ma dolli Mbay influenceur eh ma dolli eh ma dolli Maram Fay ma dolli ma dolli Amadou Ba ma dolli Matar Ba ma dolli eh sa gin gi ñàkk eh sa gu ndax ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf ci suuf ku fi tëgg casserole ñu fecc ko ba mu neex ku fi tëgg casserole ñu fecc ko ba mu neex ku fi tëgg casserole ñu fecc ko ba muy neex aljo fi tëgg casserole ñu fecc ko ba muy neex rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang est que vous allez est-ce que bu set la dama ne Youssou Ndour na la concert le premier parce que gis naa ne sonn ngeen dama ne eh! sa gén gi Fatima sa gén gi ndax sa gén gi ndax influenceur yi sa gén gi ndax Alaaji Malick Ndiaye jàngu ba rëy na lay laa jë riir ingénieur de son bi Mansour Gueye koy wooye c'était le concert de APR dara du sedd lépp dafay neex eh dara du sedd lépp dafay neex Amar Dieng militant APR la dama ne eh! eh eh eh eh eh ni eh eh eh xam naa ne ñu naan ma ki dafa dof is not crazy xam naa ne ma dafa dof di not crazy boy fi may xool romb na jam ñaajo di dem ba gasab ngaar sab sa gasab ngaar tullee ma sab gasab ngaar sa gasab ngaar gisab gisab gasab ngaar eh, sa gun gu ndak aljo sa gun gu ndak président bu fi jaar man Macky Sall maa gën a doon ab gune wax sa baaxu morom yàqul sa ma ne wax sa baaxu morom yàqul sa mbaax Karim Wade bënam Alboury Ndiaye borom teen waa Jolof di ci naan Karim Wade bënam tunnel autoroute gi ci jaar oto yi di ci jaar waaye man Macky Sall maa xalli yoon teer bi di ci jaar maa xalli yoon BRT bi di fa jaar maa puus géej gi sol fa ay xeer maa jël ndoxu géej def ko ba mu neex maa war a réew mi sapp fa samay projet 2035 day neex ñam ngeen ma ñam ngeen ma benn yoon ñam ngeen ma ñaari yoon ñam ngeen ma eh eh ma doon li <laughs> ma doon li eh ma doon Eh, eh dama ne ma dolli eh ma dolli Maram Faye ma dolli Fatima Evans ma dolli Alaaji Malick Ndiaye lay laa jë dafay riir xam naa ne yàkkam ti nga waaye may ma tuuti ma ñëw tey damay doon mbéy gay man Macky ndax Youssou nee way balaay neex am dégg-dégg. Eh, eh, eh, sa gul gu ndax. waaw waaw. nee nañ la 31 dañuy tëgg bool. nee nañ dañuy concert. waaye fii la fekk baax. man Macky Sall. Aliou Dio. est-ce que vous ñu dellu Fouta. ñu tëjee ak waa Fouta. ndaadaaldi eh, a ndaadaaldi ah, Antoine Antoine Diome c'était l'orchestre de APR c'était l'orchestre de APR merci Andey Faye Nasiya Ñanga Mariama Kumba Mam Jaara Mareetu Alaaji Malik Njaay Mansour Gaye c'était le concert d'APR concert anti casserole anda dalli eh ñoo ngi ñibbi oro ñoo ngi ñibbi yo oro ñoo ngi ñibbi yo oro ñaar ñoo ngi ñibbi eh eh ana dalli eh ana dalli eh on dilata ah on dilata ah on dit l'État on dit l'État on dit l'État Macky indi l'État eh on dit l'État Macky indi l'État eh on dit l'État Macky indi l'État eh on dit l'État eh Macky indi l'État eh on dit l'État eh Macky indi l'État on dit l'État Macky indi l'État on dit l'État Macky indi l'État on dit l'État Macky indi l'État